bi soufflé na boo da ngeen di topp waaw combat de démarré génne na Kor Marie Duxar foofu la général la jagaan général la jagaan ah Kor Marie damante na bay waaw général débat taret we done that. Oh, penalty. Penalty. Oh, Adejan. Adejan, jom ne faka fule. Jom ne faka fule. Der General Kormari. General Kormari. Oh, General Ababa Kormari. Sawa kholu khaj. Félicitations. Acho. General Jaga Chapala Kormari. Ameban. der général Kormari général Kormari oh général Ababacar Kormari saa waxoolu xaj félicitation ak mbir waaw waaw yaa jom ne tak mene ne commune Dia ah. ah général bu Buur a janga jom ne macha allah ok